waaw découverte lépp la ñu virage yi si découverte bi lañ bokk pour ñu. ci 20 bi la waaw. waaw si 20 bi nii. 20. 20 boo bëlee ñaata la 11 non non non non ba 19 bi ah? non parce que dafa gis ne que fii. Euh, euh, vingt bi la bi la ba dix neuf non mais vingt deux kii la. vingt fii fii fii couverte bi la. fii couverte bi la découverte vingt bi la commencé. vingt bi la commencé. billet billet dafay ànd tout le temps bracelet c'est un billet et un doo doo accéder doo dugg doo doo accéder. léegi presse bi aussi ñoom ñëpp dañ leen di jox euh, badge boo xamante dañ koy taf si gilet bi ñu leen di jox. ak bracelet. kenn mënul paasante kenn mënul def dara dañ koy sécuriser te ñun ñooy takkal suñu bopp na ñëpp a comprendre ni que ku ñëw ñoo lay takkal pour ñu bañ a ci jox keneen il faut que loolu mu clair. ah presse bi ñoom seen heure ñoom ñoo ñoom ñoom ñooy xool seen heure. mais il va y avoir une réunion spéciale avec la presse le vendredi ici parce que dina fekk ñu pare open press su mercredi bi pare open press su jeudi bi. le vendredi mën nañu def la réunion le vendredi ou le samedi on va confirmer nga xamante ne bu ñëwee si réunion boobu dinañ accrédité maintenant presse bi pour faciliter liggéey police bi liggéeyu organisation bi on a déjà dit avec le CNG que rajo ak presse écrite si kaw lañ jëm dinañ identifier fi leen di teg euh, télévision yi deux télévisions yi nga xamante ne ñoom ñooy couvrir ñoo ñoom ñoom la ñuy trouver solution ak CNG ñoo ñoom accès si gazon bi euh, ñeneen ñi si des ñëpp muy euh, euh, sites yeex yeneen télévision yi am na yeneen télévision yëpp dinañ leen accrédité mais sites yi dafa am un nombre restreint bu ñuy liggéeyee ça on va le di si demain ñoo ñëpp dinañ leen invité ñu def une réunion pour clarifier seen position ak seen champ d'action la presse en ligne bi nga xamante ni moom ñoom aussi ay partenaires lañ ñooñu kese la ñuy accrédité mais rajo yi ak télévision yi dinañ accrédité ñëpp maintenant est-ce que dañuy relayer en direct surtout les rajo on va communiquer ak ñoom pour ñu mën a teer toutes les informations pour que ñu mën a rentabiliser parce que combat boo xamante ni les engagements financiers son relativement élevés il faut que presse bi d'abord presse bi d'abord parce que benn presse bu nekk tu représentes des milliers de personnes il faut que presse bi d'abord accompagne ñu à réussir l'événement il faut ñu limiter accès yi wala bu accès yi lu mu bëree bëri parce que public bi nii du ñu yàq pourtant ils sont bu yàlla defee jàmm ils sont plus de cinquante mille donc presse bi mënuñu nekk cent wala cent cinquante mën ko yàq problème wu ku nekk yem fi nga war a yem la def li nga war a def jàppale sa bopp jàppale ki ñi nga xamante ne ñooy organiser. pour man loolu la jël nañ disposition euh, sécuritaire yi nécessaire la police était là la gendarmerie euh, les sapeurs pompiers. Euh, ak télévision yi nga xamante ne ñoom ñooy partenaires yi donc li si des mooy euh, ñun comme on a dit billets dina disponible à partir de demain euh, si point de vente yi ñu ko yi ñu ko def yëpp en prévente mooy ñi jënd avant encore une fois prévente découverte c'est à mille francs couvert c'est à 10 000 annexe loge c'est à quinze mille francs et euh, loge présidentielle la partie loge c'est la partie rouge mooy nekk à cinquante mille francs jusqu'au vingt six à minuit dañuy def prévente à partir du vingt sept on commence la vente et ce cinq mille quinze mille vingt mille soixante quinze mille. Euh, combat bi ce sera euh, en pay-per-view naturellement mais production wu pay bi TFM ak 2 ñoo koy def ñoom ñaar li ñuy produire. moom la ñuy diffuser si pay-per-view bi que ça soit si internet bi que ça soit si télévision yi TNT ñi bëgg a jot euh, abonnement yi ñaari chaînes yooyu d'ailleurs crypté nañ leen ñi bëgg a wu yëpp nañu abonné wu léegi si euh, TNT bu ñu laajtee combat Eumeu Sène Modou Lo prévente bi foofu tamit deux mille cinq cent la bu ñu xaaree ba le jour trois mille francs lay jar prévente digitale bi wasa mooy ñu télécharger seen application wasa pour mën ko seetaan deux mille francs la actuellement bu ñu toogee ba le 27 day nekk mille cinq 2500 prévente bi dañ ko def parce que euh, coono la boo xamante ni dafa metti financièrement engagement yi metti il faut que nit ñi mën a di am culture u teel a rentabiliser seen làmb bu fekkente ni ba le 26 am na lu la manqué di nga xam noo koy defee ailleurs dans le monde di nga gis ay combats yu mel nii wala ay événements yu mel nii un mois deux mois trois mois avant fekk nit ñi jaay nañ ko fay nañ ñi ñu war a fay ñëpp jël disposition yi war a jël yëpp en terme d' organisation mënul nekk ci bii rek ñu réussir ko il faut des années pour ñu réussir ko mais au mois nañ ko commencé. waaw teewaay bi fii dafay jaadu te képp koo xam ne yaa ngi ne ci làmb rek wala ñi ci nga xam ni yàgg nañ ci trop Tafa jàppale na leen kon Tafa bu xew woo ma dafay jaadu ma ñëw taxaw ci wetam loolu mooy justifier suma présence fii di ko ñaanal nag lii mu dugg nii mu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin et puis te na ko ñëpp jàppale ci accompagner ko parce que làmb moo soxla loolu daal ah c'est-à-dire partir des imperfections yi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ko ci làmb yi fi jot jaar yëpp pour indi ko teg ko pour mën a euh, trouver une solution pour l'avenir amul leneen làmb yi fi jot a jaar amoon na ay jafe-jafe war nañ ci tiir ay enseignement teg ko pour mën a xam dimanche incha allah ci làmb ji ñu jëm nan lañ war mën a taxawee daal. no pour être démarché wu ma dara on on non non on part en vacances et puis partons en vacances et <laughs> bien incha allah.